jégalu nag bu baax a baax euh, suñu mbokk yi waa presse bi ci euh, retard bi di gërëm di sant euh, mbooloo bu fi ñëw tey bu fekk si tey conférence de presse bi di gërëm di sant tamit coalition Yewwi Askan bi ci seen teewaay wante ngeen nee tamit ma gërëm ma sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen taxawaay ak ci jàppale bi may jàppale ci agression bu may tudd nii ak tamit agression bu ñuy teg ci euh, ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders di seen kàddu jaarale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax Sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message c'est un encouragement lii conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu bu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal euh, mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi dix ans ci ginnaaw dix ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen ma rek ma xaw a ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi luñ ci wax euh, xam nañu ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex troisième mandat ñu ne troisième mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen troisième mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci troisième mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba troisième mandat bi am kon ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom nag mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom. mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu perte dem yoonam président Macky laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd ci ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba buy nangu def ñaaw ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppan ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey su ma mandat naroon nekk mandat wu juróomi at ñu dawal ñetti at ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa door a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moom mooy indi tolof tolof yépp lu may dund tey ñu daal jàpp dossier bi mais de indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen walla <laughs> ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man mii man maa man maa ne damaa bëgg ñu àtte ma kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archives yi ñu ngi fi madame assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wójur na soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu am nekk nekkaguma woon député kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom benn weer fekk nag juróom benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ ma naa fay vingt njabootu waa njabootu waajooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woy mercenaire neex bi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci quatorze sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay ñit duñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponklu ñit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñépp ko fi gis tout le monde quatorze ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag dix ans ñu ngi may toog ci benn laa wax benn nerf bi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante quatorze sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd bi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ñu ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajo dina leen lu fi amoon mois de mars xaw lan du fi amati dama ne su la jinnee pese defaatal lu ko defoon mars rek xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d' ba tey dañuy renvoi di renvoi di renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg bu wax dëgg yàlla xaw ma nu ñu lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal ñun tubaab moom moom la ñu nam te damay bañ a wax wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 non ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko mi ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg woo ci mois de décembre décembre day am feetu Noël. man catholique la xam nga nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na datu 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko ah, monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi ñi nii damaa ngi def defi benn master moo bëggoon nga demee ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire du Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeekoo ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk. ñu nekk di wax di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii neex bi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon kon nañ ko dàq au 7 juillet 2021. ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 ma dem tribunal ma ñëw dugg toog bi tëri nañu maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10 heures kenn woowu ma 10 heures et demie kenn woowu ma ma ne waaw lii mu demee nii 11 heures kenn woowu ma ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9 heures et demie 10 heures ñu woo ñu mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi. mu dem seeti greffier bi greffier bi nekk nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut de procureur bi mu ne ko waaw mais es ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmer wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement C'est un comportement qui est inadmissible, inacceptable et intolérable. Et je vous le dis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce pays, ce en a marre. dama ne ñu nekk tribunal dañu xola seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jël dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di woy intouchable mooy ñoom kenn du leen laal. dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñu def benn ñaw ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur duñ def dara ñoom ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëriw lañu ñoom def ñu daal ma bëgg nag wax jooju ñu teg ci suuf fii menace amu fi fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat du ma fi wax dama ne. juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajafee parce que man damay xool nit man naa xàmmee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woyee Serigne Diaby du noonu moom comme nee day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Diaz moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut ne leen kaay leen toog yow kaay yow dangay ñëw toog ma ñëw toog comme ne nag da nga may àtte ma xam lan nga fiy lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka dama ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu da waxtu ju dëppuwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi leen maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy bu ñuy bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen ngeen ngeen ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral point net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la moon li ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST DST mooy direction de la sûreté du territoire moom benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee abu Abou Diop ñu koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bëggatuñu Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen parce que ñoom li ñu namoon ci man mooy duñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag. comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xëcc ñu ah, waa ji pour ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port man ma jël décision bi ma attaqué ko cour suprême cour suprême moo may dëkk cour suprême ne Barthélémy bii di homme politique di opposant jënd ay fetalam fii ci benn armée yi na ngeen ko delloo permis de port d'arme nak ngeen mënee toog tey ngeen ne ngeen man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoru moon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppawul ak dëkk. ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp nous sommes en pénal lii pénal la. pénal amul lépp les bonnes pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar bu def ko fetel bu ma fi jot doon wax naa ko neuf millimètres la xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi ngi commissariat central mi ngi sûreté urbaine ñoom suñu taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu bu way Ndiaga ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non boobu da nga ko sànni géej boobu da ko dugal ci suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga ku bëgg a sa xel na nga sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier dossier bi waaw euh, ah, wax naa jóg mais je pense que kooku woo juróom bu jigéen ci dugg waaw ah, parce que dama ne munoo bëgg bëgg a àtte dossier bu mel ni de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi mais yéen gënaat ngeen vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé soixante dix sept douilles yéen xam ngeen soixante dix sept douilles ñaata chargé si ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd di moom kese rek muy fet ci ci tiir ni moom kese rek soixante dix sept douilles c'est au moins cinq chargeurs xeex bi TFM lu mu waree ci xeex bi loolu book mëtul sax mëtul sax vingt pour cent wu xeex nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu doon ay otom doon essence am génne xaalisam fay ay samba booy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable bu ci dugal loxo kenn def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci amul kenn kuñ ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu leen lu ñu condamné nervi nervi yi amul kenn ku ci condamné un jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné la association de malfaiteurs ay rassemblement illicite mais Barthélémy Diaz qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 de demuma tribunal pour ñu may fooy ak di ma kokkali parce que affaire bi ñu ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Dias ak vider dossier moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waat tey résistance parce que dama ne ku xamul pour deen nga xam ne ni buur wuti wuti na dépense parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre dinaa suba dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di layam layam di layam layam di noonu suñ fa toogee di layam layam yi man suko ko gaañi xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem damay dem campagne lu may bañ rek parce que man du ma kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre ah dama bëgg a wax ci leer dama bëgg a wax ci leer ah te ma bëgg tamit parce que je je xam naa lu ñu xam naa lu ñu nam ci dossier bi xam naa lu ci nam parce que wax naa ko sànq ci tubaab nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee dañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier dossier bi daal ñu ne bon maintenant ñun dañu xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a gaagal ñu ñu mën a galgal baax bañ a bañ a nekk maire de Dakar ñu yuuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gaa yi jël loolu teg ko ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxul dañ jéem a xool ñu jëlee mairie de Dakar ñu sayal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gars yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom na seen yaakaar dafa tas seen yaakaar dafa tas ci coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ma tànn bu ma seen candidat fii département de Dakar mairie de mooy dëgg man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à huit heures du matin le cinq novembre ñu ñëw suma kër indi seen kayit kayit bi euh, ku ko xool da nga xam ne ni lii ab mbiru complot la Pape Nerdy bi boobu moom nee na moom jot na kayitam yàgg na moom dama polémique ak moom parce que kenn mësuma dégg ma wax ci waxam wala wax ci doomam wante nag lu ëpp tuuru man tamit ay doom man tamit ma yor tamit ay mbokk yor tamit ay ay man tamit ma yor tamit ay soppe dama ne moom xaw ma chiffre vingt cinq lan lay représenté ci ñoom wante moom dama bëgg moom mu xam ne ni ko doomam nervi la woon te du xas du xas te du saaga doomam booy la woon parce que ku bàyyi sa kër nga yéeg ci oto jox la vingt cinq mille francs da nga di dem ci ay kër personnalité politique pour songaleen loolu ab mbiru woyu la ab mbiru bandi la ab mbiru nervi la ab mbiru mercenaire beneen bi ñoom bañ may topp man nee nañ ma su ma fayoon sax vingt cinq millions yi daanaka wax duñu sax moom lañ ko fay première instance ma man su ma amee vingt cinq millions ma jot ko jox ko waa Empire des enfants wala ma jox ko SOS village des enfants moom ma gënal ma leen di ko jox vingt cinq millions dama liggéey dama fi gisul lan laa leen man ma nga a suma xaalis leen di ko jox ci ndàmbaay Macky Sall bay ñëw ma kër ba xew-xew bi am lu mu wax ñëpp dégg nañ ko. nee na Barthélémy Dias dañ ko tooñ nee na Barthélémy Dias dafa défendre nee na benn responsable moo fi am mooy état du Sénégal état du Sénégal dafa am assurance. assurance su état du dañ koy wooye agent judiciaire de l' état kon état du Sénégal su tooñee moom assurance tam mooy fay. kon tey du président Macky Sall mais président de la ah wax dëgg yàlla nag bés bu ma gisee état du Sénégal di indemniser nervi man nag ma xam ne nag Sénégal nag euh, dëkk bi nag wax dëgg yàlla ma ni dem ci beneen dëkk dem dëkk fa. parce que nag nerf yi bu ñuy indemniser ah sañ na ko naam sañ na ko parce que moom tey daanaka moom tey yaakaaratu ko ci ay pa tey yaakaaratu ko ci APR. président Macky Sall tey yaakaaratu ko tey ci Benno Bokk Yaakaar daf ko yaakaaree ci lan ci nerf mois de mars gis ngeen lu fi xew yéen ñëpp da ngeen di actualité biig rek gis ngeen lu xew Ziguinchor Ousmane Sonko est un député du peuple c'est un député de la Casamance ça veut dire que l'État du Sénégal n'a engagé aucune poursuite amul benn enquête amul benn arrestation ana Guy Marius Sagna song nañ ko fi Mbour xotti ay ko gendarmerie ne pat balaa may dee ñu ne la gendarmerie est une institution depuis quand est que la gendarmerie est une institution depuis quand. donc loolu yëpp wax leen que tey su ngeen gisee man sax ma xaw a am jàmm tey man Barthélémy Dias c'est parce que gars yi dinañ soo ko gaañee mais man man wax dëgg yàlla man moom gars yi moom dañu pare si suma ay bagages waaw dañu pare si suma ay bagages parce que bugguma politique pour foo ak ñoom te nag. ëpp baax na ci laax bu tàng depuis la fusillade man may nañ ma jàmm te jàmm boobu moom incha allah dina continuer parce que man wax naa tribunal lu ma nagoon wax tribunal wax naa lu ma def te waxaat naa tamit nee naa lu xewoon ci buntu mairie maire Mermoz Sacré-Cœur ñëpp dañ ko ñaawlu ko yàlla mais loolu bés bu amaatee la woon fa woon ba woon avec parce que ñun ñëwuñu politique pour di tooñ ay doomu aadama wante du ñu nangu kenn di ñu tooñ ñun lu ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal lu ñu gëm mooy dañ koy waxtaanee dañ koy pencoo mais kenn mënu ko aakimoo ci lan ci gën ay neex bi di jaay ñi doole ah, mbokk yi xaw ma lu ma dëgg ci wolof waaw dama daan euh, dama ma ne ma ne effectivement ma ne euh, ñun dañu wote chaque fois gars yi ñu ne non ñun suñu wote résistance ñun kenn du gis suñu doom yi dañuy jël doomu jàmbur yi danañ dem leen ci mbedd bi dama ne man mercredi dama stationné dem tribunal ma suma que suma doom yi dañu bokk tey ci lu ma gën a metti ci dossier wax naa ko nee naa man suma yaay benn doom bu góor rek la am mooy man mi yàlla dogal mu xawoon am ay torof torof ak euh, ak yaram euh, moom dossier bi dakay koy ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom bu bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamu ci dara ndeysaan muy dem ekool xale tamit di ko tooñ ñu koy tooñ di ko ba bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma noonu de ma école ma ne ko tax demoo école mooy non man dew ma école parce que saa may dem école su ma xayti dañ may tooñ ma ne ko dañ lay tooñ ma ne ko loolu xanaa lu tax ñu lay tooñ dina man saa may dem école parce que bu ma xaritee rek may ne man sa papa yow assassin la reykatu nit ma xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu ne ma waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may toog su may dem sax su sax sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce su ma génnee ñoom ñëpp dañ may toog di ma toog di ma ne sa papa reykatu nit la sa papa reykatu nit la ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa pap mu waa ñoom ñëpp xam nañ suñu pap ma ne ko yow est-ce xam nga est ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen pap ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy baxte di yàlla dama jàngi ko ma ko bés boo màggee di nga gën am kontante sa bàyyi lu mu liggéeyal Sénégal ma ne ko parce que bés di nga xam lu jotoon xew ci euh, bés boobu ci mairie bi ma wan ko vidéo bi mu tiit parce que musul gis ay fetal mu tiit ma ne ko bés bi sa papa su defuloon lii yow tey doo am bàyyi ma ne ko kon nag dama jàngi école ma ne ko ñu lay tooñ la ne sa pap ñoom ñëpp xam nañ sa pap comme yow xamoo seen pap rek na nga jàpp ni seen pap yi tekkiwu ñu dara Sénégal ngeen jégal ma ci kàddu kon nag mbokk yi dama ne dama ne man mercredi le 10 dama fas yéene dem tribunal yóbbu suma doom yi pour ñu mën a ubbi seen bët ñu xam kan mooy seen baay dinañ xam est-ce que seen baay assassin la wala est-ce que seen baay kilifa la buy xeexal réewam buy xeexal démocratie biir réewam moo tax may ñaawlu bu baax a baax a baax communiqué wu procureur général euh, waa ji Santandé Diaby parce que communiqué boobu lu mu wax dëppawul ak dëkk man maa gën a yàkkamti ñu àtte ma wante lu may ñaawlu mooy caaxaan ñi ñuy dugal ci dossier dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla naka la ñu mën a bëgg téye benn dossier dix ans bañ ko àtte dix ans loolu suñ ko teg suñu waxee suba mooy élection wala suñu waxee diw dafa bëgg a déwut candidat ñu ne waa dañ tribunal et loolu fuñ ko teg fuñ ko teg balaa may dee ñu ne waaw il faut respecter la justice mais dañuy respecter une justice qui se respecte loolu mooy dëkk kon nag ñun mercredi. nga leen ñu rek nga leen mercredi incha allah mercredi incha allah lu ñuy sàkku ci ndaw ñi mooy da ngeen envahir le tribunal de Dakar ñoo wane seen taxawaay ak seen naqar dama ne mercredi fu ngeen mënti nekk di Dakar ci gox goxaat yi na ngeen seen taxawaay une résistance la ñuy woote ñoom nag magistrat yi dama ne may ñu rek ñu daal ci conférence de presse s'il vous plaît dama ne ñu ci bëri ci ñoom magistrat ñoom dañ jàpp ni kenn ñoom kenn xamu leen kenn leen ràññee parce que kenn kenn kenn kenn xameewu seen kanam mën nañ def leen neex mën nañ wax le neex dara du leen ci fekk fa la nag parce que dama ne lu ëpp dama ne résistance bu ñuy wootee mercredi ci mbedd résistance boobu moom laa fas yéene am ci taxawaay ci biir tribunal te ñu ma xam xam nañ est-ce que wax wala est-ce que damay waxantu ñëpp lay respecté wante dama ne ce cirque-là il va prendre fin mercredi au tribunal de Dakar incha allah bu leen neex na def leen bu leen neex def leen su ngeen mënee jàpp jàpp leen su ngeen mënee téye téye leen su ngeen mënee rendi rendi leen wante dama ne si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos voitures fumez, euh, teintez, vous vous si vous pensez que vous êtes en sécurité dans votre dama ne su ngeen jàppee ni que da ngeen da ngeen am kaaraange parce que da ngeen nekk ci tribunal nekk seen bureau yor ay garde corps yor ay gendarme dara du leen ci fekk da ngeen ñu nax seen bopp su ngeen fekki su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay oto ñu leen dawalal ay waa GIGN ak ay waa BIP leen di escorté dara du leen ci fekk da ngeen ñu nax seen bopp yi su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay kër ñu di garder dara du ci fekk dama ne da ngeen di nax seen bopp yi te dama ne bu leen taxaw fii di ne dañ leen menacé kenn menacé wu leen dañ leen di wax luy xew mercredi ngeen jàppee ko noonu waaw dossier bi di ngeen ñu lett baa ngeen firi parce que lu ëpp dama ne man kii di Serigne Bara Gueye ñu ci nopp dañuy noter waaye s'il vous plaît. boo jugee ñu def làmmiñ yi ですかyàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yàlla tamit na yàlla nangu suñu ñaan yàlla bu fi troisième mandat am yàlla na ma teel a jóge mais amuñu. dama ne mbokk yi fi ñu daanelee dama ne mercredi dinañ dem tribunal ànd ci ak yar ak teggin wan day ànd ci ak fulla ak fayda ak résistance ak résistance ak résistance parce que nag dama ne mënu leen jël dossier dix ans bañ ko vider lu ñuy sàkku ci justice bi mooy nañu àtte te àtte bi su amulee nerf bi ñuy ñëw taxaw ci euh, procès bi ce que tout le monde attend de ce procès ñëpp xam nañ ko mooy na juge bi wax non lieu Sénégal jëm kanam ñëpp a am jàmm wante ñi am jàmm ñun duñu am jàmm mënul nekk euh, dama dégg effectivement maa doon tudd sànq suma doomu ndey Guy Marius Sagna euh, dama dégg que waajuram bu góor dafa génn àdduna ngeen may ma ci turu coalition bi fii au niveau du département de Dakar à mon nom personnel ñu ngi koy jaale euh, Guy Marius Sagna di ñaan yàlla yàlla na yàlla xare wajuram bu góor ci àddina yu gën a kawe moom Guy Marius Sagna di jàmbaar di patriote yàlla na ko yàlla may xolu muñ te ñu ngi koy jaale tamit à toute la Casamance euh, mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw euh, doon wax tamit que je le répète je pense que wax naa ko ci tubaab nee naa mbir bi du mbiru Barthélémy Diaz waxoon naa leen ko ci mois de mars ma ne leen mbir bi du mbiru Ousmane Sonko mbir bi seen mbir la mbir bi mbiru démocratie sénégalaise kon nag ñun fi wootee mooy résistance ngir démocratie sénégalaise man nag ma nekk maire commune Mermoz Sacré-Cœur euh, bërki démb mu am tiis bu metti bu fi am bu fi xew wax dëgg yàlla kooku mu metti ñu ñëpp ñu ngi jaale ñu fi jóge ñu ngi masawu ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla indi jàmm Sénégal yàlla na yàlla tàpp xol yi parce que am na yenn yi wax dëgg yàlla ànd ak yàlla rek mën a expliquer situation bi. kon ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla may ak yàlla na yàlla tamit dëgëral suñu suñu diine yàlla na yàlla dëgëral dëgëral suñu diine yi. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm la presse je pense qu'il a pas de question di gërëm le public te leen di jox dig daje incha allah mercredi le 10